route à tailler. Mhm. wallaay. Alaaji euh, li ñuy tàmbalee rek euh, ñu ngi jaajëfal euh, suñu ministre El Malick Ndiaye bi nga xamante ne ni moo jiite wàllum transport. Mhm. ñu gis muy def ay jéego yu am am solo ñu ngi jógee ci ay séminaires yu nga xamante ne ni avant ñuy waajal màggal gi. Mhm. yaakaar naa ne engouement màggal gi sax moo xaw a nëbb événement boobu noonu ci transport mooy dajale ñëpp ñi nga xamante ne ñooy acteuru transport yi ngir waxtaanee. lan mooy gën a ñoŋal lan mooy gën a jëmale kanam secteur bi ñu nekk muy transport mu woo ci acteurs yi yëpp borom cag-cag yi ñëw nañ borom alu dakaar yi ñëw nañ ñëpp ñëw nañ yaakaar naa yaay Uray mi ngi fa woon ñu waxtaanee ko pendant trois ak quatre jours yoo xamante ne nii waxtaanee nañ ko ci loo xamante nii ci liñ jëm muy états généraux yi ñu fas yéene amal ngir jël ay dogal ci soppitey luy jëmale kanam transport bi yaakaar naa ne ci loolu la ñu jëm waaye du ñu wax te du ñu wax ci màggal yi nga xamante ni moom la ñuy jógee alaaji yaakaar naa ne ren changement bu bëree bëri am na par rapport ak yeneen édition yi nga xamante ni ñoo doon jàll accident yi ren wàññeeku na am na beneen euh, taxaw seetlu bu ñu mën a def muy ministre bi dogal bi mu jël ci jël waa Dakar dem dikk ñu ñëw def organisation bu extraordinaire boo xamante ne ni c'est à sincèrement am na ñu mu neexul ci secteur transport bi waaye population bi gis nañ ci seen bopp naam am na taxaw seetlu buñ ci war a def ndax organisation bi desoon na tuuti ndax euh, nit yi daje nañ fa mu xawoon am tuuti ay jafe-jafe yaakaar naa ni yooyu su yeneen événement yu ñëwaat dinañ ci jël ay ay ay ay mën a xool nan la ñuy waat loolu dégg nañu ministre de l'intérieur mu wax que ni ci deux mois am nañ seize meurtres ci deux mois ñun suñu defee taxaw seetlu ci transport ci trois mois on presque à quatre-vingt-dix quatre-vingt-quinze morts sur les routes au Sénégal donc ni ñuy taxawee seetlu di wax ne seize morts duñ ko tuutal ndax bakkanu doomu aadama foor na lool waaye ñu taxaw seetlu ne ñun ci Sénégal tali yi ci trois mois rey nañ presque 90 à 95 personnes. du tali yi kese facteur humain 80 euh, euh, euh, pour cent facteur oto 13 pour cent ah. 90 pour cent facteur oto 7 pour cent facteur tali infrastructure 3 pour cent. donc war nañu war nañu gën a jëlaat ay ay ay ay ndogal. xaw ma gën a waxtaanee waat wàllu woowu ndax fu ñuy waxee 16. ak mais bëggu leen lu baax yéen waat transport bëggu leen lu baax bàcc ba attaqué laa lay def boo ma attaqué da yaa ngi rëy ngi nii dina ma jàppale non <laughs> leen lu baax ndax bu ngeen fi yore ay oto yoo xam ne man ñoo mag sama maam mhm. man sama maam bi muy nekk jànq mhm. moom lañ ko yóbboo woon Moussa yi euh, Dagana mhm. oto yooyu ngeen ne bëggu leen oto yu bees ay nit di leen indil ay oto oto yu bees yi changer parc automobile bi ngeen leen di siis. oto yu bees yi da ngeen a bon. ñëw ci waxante dëgg ñëw ci oto yu bees yooyu. waxal Ourey. ah ah nan waxante dëgg ma ne ko ñëw ci oto yu bees yooyu waa transport da ngeen a siis. El Malick bi mu fi jëlee ay mesures fii ngeen taxaw di ko móolu di ko di ko di ko di ko fidaaw. di ko dankaafu transport. transport mooy yaag trans yaag transporteur mooy Ourey. yaag transporteur mooy mooy Sénégal non non non yéen da ngeen am seen groupe boo xam ne ku leen jege ngeen ne bu mu fi dugg <laughs> ah Ourey nañu waxante dëgg grande sœur jàppale ma yow loo ci dajul mburu dajul ko cib taal nañ waxante dëgg waa transport ak ñu ñu ne noo waa réew mi comptage bi fekk waa réew mi ñëpp a ngi sibile naan bis Dakar dem di dañ ñoo jàppale nit ñi ci tabaski bi jàppale ñu ci màggal gi transporteur yi mer ba fut naan non ñëpp yokkuñ ma ne ah mais ñun kontaan nañ xaw ma ndax mere ngeen ko wala merewu leen ko nañ waxante dëgg dëgg la ah bàcc ah. bis bis yooyu ngay wax màggataay bi moo ta yaay uray def innovation moom ñëw dugg si ci secteur bi indi ay ay ay bus yu mucc ayib yu bees comme ni ñu ko bëggee waaye mu am ci ay jafe-jafe yaayu rey. <laughs> waa mais sama jafe-jafe yi Pape Sidi li wax da koo résumé. Mhm. ndaxte xam nga Sénégal euh, dafa am ñoo xam ni peuple bi dafa bëgg lu baax. Mhm. am ñoo xam ne dañoo téye. Mhm. benn secteur. ne dara du fa changé te nanguwuñ cee investir waaye ba pare nanguwuñ ko dugg. donc euh, ñun problème yi ñu am yëpp mooy euh, dañoo indi lu bees. indi lu confortable indi lu dëppoo ak jamono ak loo xam ni ku nekk mën nga gaare sa oto. dugg ci dem tranquillement euh, yàlla suturaal la nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm te li ngay fay du cher bi ñu defee noonu ñun nangu ñoo ko prix ñun dañu aligné wu li ñu doon jaayee année bi yëpp moom lañ jaayee tabaski moom lañ jaaye màggalu Touba mooy seen changé suñu prix changé wul nous on est resté sur nos 6000 francs ñun suñu bus lu muy confortable confortable on est à 6000 et dañu ne 6000 boobu bu ko jaayee xam nañ ne bu ñu yebee dem Touba bu ñuy ñibbisi kenn nekk ci bus bi dañuy perte mais ñun dañ jàpp ne loolu mooy suñu contribution parce que transport bu ñu fàtte ni euh, kii euh, la service public la état bu la ci joxee agrément mooy dafa jël ci ci li moom moom ne la yow bàcc am autorisé naa la nga jàppale ma ci liggéey bi. léegi nag ki ngay jàppale ci liggéey bi bu neexee da nga ko war a jàppale bu mettee da nga ko war a jàppale. loolu mooy service public. léegi nag service public boobu moo war a tax nag bu événement jotee ñëpp jog ne dañuy jubali Touba. te ku dem Touba di nga toog 24 heures wala 48 heures balaa ngaa ñibbisi yow pour nga jël siwaat ñi nga bàyyi woon Dakar dangay daw vide. dangay lak lakk essence fay personnel mais nag da ngay jàpp ne bénéfice ba nga doon def ca at ma. da war a contribuer ci service social boobu. moo tax man gëmuma nit ñi bàyyi ba événement jot ñu wàññi ñu yokk paas. gis nga loolu ku koy def. mooy amoo vision à lon terme ci business. vision à lon terme mooy état moo la jox ne la organiser ñun ne noonu lañ ko gisee ci macha allah transport. te gëm naa ni it ay Dakar dem dikk ak yooyu loolu lañ nekk di def. ay privé lañu. ñi ngi liggéey mais tey la moo tax 2STV bu màggal jotee mu yóbbu 50 personnes Touba. di leen fay per diem jël leen en charge est-ce que dafa am koo ko fa ciy jox xaalis. Mhm. kenn joxu ko mais c'est ça mission de délégateur de service public. Mhm. RTS di def noonu TFM di def noonu keneen di def noonu. Orange di dem Sonatel di dem yeneen compagnie di dem parce que li ñëpp bokk. ku ne dañ cee war a dugal sa loxo affaire bi du utum bénéfice kese mais tamit dugal sa loxo ci luy jëmale réew mi surtout nag loo xam ne yow boo ko defee am ci yool mm-hmm. am ci yiw kay sàkku ji yiw boo ko jàppalee mu dem mais dañ nga ciy am yiw ñun bàcc dañuy yeb suñuy client ñu fay ñu ba pare mm-hmm. taxaw di ñu ñaanal xam nga loolu kenn mënu koo natt nit day ñëw dugg sa bus génn xol bi sedd kooku dalay leer ne xelam dal na mm-hmm. yóbbu nga ko yaa ngi naan Dakar dem dëkk ñun def nañ màggal Mm-hmm. on a fait trois navettes par jour. Mm-hmm. sant yàlla mm-hmm. amuñu si benn problème. parce que da ngay réviser sa oto da nga koy teg ci état. da nga koy garanti. da def de telle sorte que problème bu am ñun benn oto lañ gaare xam nga lu tax ñu gaare ko. dañoo dañoo dem ba ci sentir ni disque paanul de dañoo sentir ni mi ngi am problème dañoo ne chauffeur bi gaareel. Mm-hmm. ñu jël beneen bus mu fekk ji ko yëpp ñooñu chauffeur boobu taxaw mm-hmm. parce que nit aussi ay bakkan nga yeb mm-hmm. bakkan boo ko yebee il faut nga comprendre gis nga ñun xam la moo tax ñu dugg si interurbain tey man jëndoon ay bus man agence de voyage laa am ñëpp xam nañ ko kon man xam nga ne am naa licence tourisme su ma neexoon ma toog fii def ni compagnie de bus yëpp di mm-hmm. loué sama ay bus ngay dem ma lay loué encaisse sama xaalis tëdd sama kër tranquille te foofoo gën a sedd moo ëpp xaalis amul mën naa ëpp xaalis moo ëpp xaalis mm-hmm. man tey li may wër di daw di am journée cinquante mille mais tey fii su ma loué je suis à quatre cent mille cinq cent mille benn location mm-hmm. te wax dëgg neex yàlla xanaa su ma woon pap si rek samay bus dañuy fees tout le temps damay na loo xam ne nit ki bu ko décidé def il faut nit ñi xam lan moo ci dugal kii man li tax ma bàyyi confort boobu doon def ñëw ne damay dugg ci interurbain mooy man dama liggéey ak ministère des transports en tant que consultante pendant des années may dem di gis tout le temps ñu ñuy woo accident am na fii accident am na fi man accident jum bi ak si kilo ñoo ma décidé loo dugg ci interurbain mm-hmm. parce que avant dama yoroon ay bus yu màgget yu doon daw Dakar jawbe di yebee fii stade li nit ñi di wax naa man gan laaj tram man du ma gan ci transport man duma ma gan ci business ku ma xam ku ne mm-hmm. xam ni ñun ba ñuy ba ñuy ba ñuy liggéey ci ay millions ay étudiants la ñu woon il faut que nit ñi aussi mm-hmm. di di di bàyyi di tuumaal gor da gis ku ñëw waa Adja Ouré fu mu jëlee xaalis bu mu investir mais ñi ma xamul ñoo ñoo xamul ñi séqut man liggéey mm-hmm. ñoo xamul li ñuy def mm-hmm. mais ñi ñu xam dëgg xam nañ ne yàlla dafa ñoo dimbale 1999 ba tey dañuy liggéey te lu mm-hmm. ñu liggéey lu ne ay million lañ manipuler sant yàlla alhamdulilah du du wanewu mais teggi tuuma dafay baax ci gor loolu c'était une parenthèse en passant mais bàcc li ñu indi ci parc automobile bi ku ko xool xam ne ku ko tegoon Dakar mu daw mais li tax ñu dem ne dañuy dem ci région yi parce que dañu dem fekk ay gor yu jóge seen ay dëkk ne dañu bëgg a dem ci beneen dëkk bu ñu génnee oto bi daw bagage yi mu yeb bari oto ba daw ba ci yàgg këpp ñëpp dee nga taxaw loolu kenn mënu ko régler xam nga lu koy mën a régler mooy ku nekk na nga xool ca la nga mën nga ñëw investir ci luy renouveler parc bi nga tegal nit ki loo xam ne bu bëggee dem tey day ñëw gaare mais xalam day dal ñun dinañ def de telle sorte que boo duggee suñu bus li ñu lay njëkk def mooy dañ naan la toogal takkal sa ceinture tous les sièges sont dotés de ceinture mm-hmm. nga takk sa centure ñu ne la brancher sa téléphone nga branché sa téléphone tu es connecté ñaata accident am nit ñi kenn xamul fu ñu nekk parce que seen fay na ci yoon bi mënuñu ko woon chargé ñëw nañ taxaw xaar non c'est un besoin vital aujourd'hui mm-hmm. ñu ne la reste connecté ñu ne la connecté wul ci wifi bi waxal waa orange nañ ñëw sponsoriser suñu bus si def ci wifi bi may ko askan wi parce que tey ñun waruñu parce que c'est un service qu'on offre aux Sénégalais gratuitement ñu ne la connecté wul bu ko defee yow foo nekk sa mbokk xam la bu la neexee nga dugal sa localisation en direct sa famille di gis fi nga toll. addina dafa gudd tànk. ñu ne la connecté wul ñoo la ko may. ñu jël butéel ndox bu sedd guy ne la am ñoo la ko may naanal. ñaata nit ngay gis ñuy daw def ay 6 heures de temps amuñ sax ndox buñ naan dañ naan la chauffeur jënd sump di ko xool li ci biir bus bi ñu ne la naanal keroog damaa toog ba si yàgg ne yi am naa ay câble chargeur trois têtes yoo xam ne téléphone yëpp lay chargé man leen dugal leen ko ci bus bi ku fàtte chargeur am ngeen jox ko mu chargé mhm. xam nga yéene nit lu baax mhm. dafay barkeel business ñun transport dañ ci dugg pour def lu baax mhm. loolu mooy accessoire yi waxuma confort oto bi parce que climatisation bi 19 degré lañ koy bàyyi Dakar ba nit ki yow da nga dugg rek nelaw keroog dafa am benn caméraman dafa dugg ne ma suma duggee damay filmer bus bi mais neen daa dugg teg clim ba sedd mu nelaw <laughs> nee na bi muy egg dañ ne ko <laughs> egg nga egg leen wàcc leen xam nga loolu les mhm. sénégalais méritent saa il ne faut pas que ñu xalaat ni ñun dañu war a te gis nga ñun ñëpp suñuy maam ci ay case lañ dëkkoon dëgg la ñun ñëpp tey ba ñuy jàngee dañ doon dox mhm. mais tey kii dàll bii mu sol moo gën a chair juróomi atu dàll yu mu jëndoon il y a vingt ans àddina day dox il faut nga dox ànd ak moom n'ayons pas le complexe de moderniser ce que nous faisons mm-hmm. ñun loolu mooy approche bi ñu ci am gis problème bi ak ak wànda mais comme ay gaynde waaw kaay ñu kaay xam nga xam nga nettali xuloo xuloo la mm-hmm. mais xam nga xuloo boo xam ne réglé ngeen ko àtte ngeen ko problème bi am na solution parce que du problème parce que tey yow Pape Sidi Fall nañ waxante dëgg mm-hmm. Youssou Ndour daa mën a wax El doo émettre munul nekk je donne des exemples terre à terre yow nga am licence am agrément am sa ay kayit mu jaar yoon nga def li nga war a def jaar fi nga war a jaar man nee naa leen bu leen fàtte ni fukki at maa ngi ci secteur bi. Mhm. lu fi nit war a xam ci yoon yàlla dimbal na ma xam naa ko donc lu waay war a def teg ko ci yoon xam naa nuñ koy defee. te teg naa fa sama tànk. Mhm. man ku ma xam-xam ne ci yoon laay dox. man muy ci màkk geek beneen business bu may defit ci yoon laa koy teg. co cooli bala mu doon neex. waaw ñu ni maman warul def. transport parce que amul agrément. mais merci warul def transport parce que étranger la. mais ñun ñëpp suñu nekk mënuñu nekk ay sénégalais ñun. Mhm. ñun ci suñu biir ñu bëgg a xatalante di wax ne waroo def nangam waroo def nangam. tey suñ ko tegoon ci ay ay ay ay ay ay yu ay yu leer. parce que man bi ma njëkkee dégg dama ne noonu loolu mënul nekk. Mhm. mais ma seetaan la nga def intervention ma gis yenn waxtaan yi ma am ñu ma ci waxtaanal. génnee kayit ñu ne ma am na kayit yëpp. am na lépp ba am lu ëpp lu am am sax lu ñu bëri amut. donc mais ñan ñoo la doon wax ne la doo def. en fait xam nga fi mu nekk nii waa gare routière ñoom ñoo doon wax ni ñun waruñu daw. parce que li ñuy wax mooy ñun dañoo war a ñëw rang bokk ak cette place yi bu ñu xëyee cette place yi rang yeneen oto yi rang ñu toppante ko ba ku nekk dàq sa wërsëg mais man dinaa ñëw investir cent millions ci benn bus développer sama application di ko fay. yow ngay réserver à l'avance yow tey boo bëggee dem ndar 31 décembre bu la neexee nga dugg tey réserver ma yow bu dee yow kese kese kese la ma fees damay dem ma ñàkk fees damay dem après nga ñëw nga ne ma léegi man naa topp ci koo xam day toog di xaar mu fees. man kan lañ la kan lañ la tegal comme concurrent. franchement ci transport Sénégal nekk. transport ak kii kaar yu màgget yi ak yooyu xam nga tey man dama ne leen. ne serait par respect man ñoom sama ay càmmiñ lañ yow xam nga ne secteur bi. bëri naa fi ay càmmiñ su ma hmm. neexoon ma dem taxaw def bruit yëngal di jaar ki mais du ko def. Hmm. man damay jaar yoon su ma paree ne tekk toog jàpp sama ñàmbur. Hmm, maintenant li jaaxal ñëpp mooy dañ naan non kii dafa am ku ko dooleel fi mu nekk lool la ñuy wax parce que bi leen yoon woowee ne leen kii dafa nekk ci yoon de fexe leen ba bu leen ko seen loxo laal te bu leen ko laalati parce que dañ daan xëy indi ay war gaynde bloqué sama ay bus ay clando lañ doon jël bloqué sama ay en encerclé ko xam nga loolu tooñ weesuwul loolu dem nañ ba sax di menacer que ni dañuy. ils sont extrêmes mais xam nga tey xam nga réew mi li ci neex. mooy Sénégal réew yoon la. xam nga yow tey boo proféré ay menaces nga dem taxaw affiché wu ne bus bi du fi daw mu nga ne ko lu tax mu ne la parce que man su dawee du ma am client mais demal wuti client man sama bët yi du nelaw. damay fanaanee liggéey ba suba teel jot balaa maa tëdd damay xool taux de remplissage bi bu feesul man leen yéen jóg leen xanaa lii mais nit il faut nga liggéey ci sa produit. Mhm. su ma ci liggéeyee ba pare mais ku nekk da def noonu. man xëyuma toog naan yàlla jërëjëf xëy tuur ndox ci booru oto bi taxaw di xaar nit ki jóge këram sénégalais yi confort lañ bëgg. Mhm. léegi kenn jógeetul sa kër naan maa ngay dem di wër taxaw ci tali bi di wër oto oto bi fi mu nekk nii. mais li ngay li ngay li ngay proposé li ngay proposé ci service. mais mooy def différence bi nit ki day toog këram. waaw dugg wax heure bi mu bëgg a dem réserver fay séquma maak yow ñaari salaamaaleykum bu jour ba jotee nga ñëw su ma tardé cinq minutes taxawal kalaame ma maa la tooñ su oto bi feesulee yow yaa ngi ci biir te heure bi jot na dañu war a dem yow mi tardé duma la xaar amul taxaw arrêt yi ñu war a taxaw foofu lañuy taxaw buñ ci pare pare nañ ci maintenant nag. nit ki taxaw ne la yow doo dem moom ban droit la am si ne la doo dem dëkk bi. parce que dañ naan boo demee ñoom duñu feesal ñoom duñu feesal. mais aussi transport mais nañ mais ce que bon li may wax ay jugement ay jugement yu ay ressenti yu personnel la yoo. xamante ne ni mën nga ci mën nga ci indi leeral par exemple. est-ce que for real transporteurs yi dañu soxorante seen biir. parce que soxor am na ci milieu boobu man day man day li ma subir. man moom man moom gis naa ko parce que li tax ma gis ko mooy xam nga nit ki taxaw ne la jàkk yow taxaw ne la dangaa wu nekk ci télé yeeg yi di ŋàlli ŋàlli te ki ma ko wax président Garou ci air na xam nga nga woote conférence de presse yow amoo looy wax lu dul ndaw siy wër di ŋàlli ŋàlli daa xamul lu xew xaw ma la nag lan man ku ma xam-xam ne ŋàlli ŋàlli yow ma maa mag loolu man fi ma toog jóguma fa mais nag damaa takk sama ndigg ne ci réew mi bokk ci ñi am jom nag bokk ci ñiy defar réew mi bokk ci ñuy créer emploi su ma neexoon damay toog nekk journaliste yam ci loolu su ma paree di xool leen lu ma ci boole mais dama choisir jël yoon bu difficile bàyyi tele bàyyi rajo bàyyi micro dugg ci entrepreneuriat di xëy di perte ay millions su ma xëyaatee jooy ba kontaan jógaat takk sama ndigg di liggéey am ay gor yoo xam ne dañoo mel ni man yàlla dogal seen wërsëg di jaar sama loxo bu weru dee ma fay leen ñu yóbbu seen kër réew mii ñun ñoo ko mën a tabax te liñ koy tabaxe mooy nañu investir si luy développer réew mi nañu investir si loo xam ne ñeneen dañuy xëy di ci liggéey man liggéey loo ma kenn bëccëg bu weer deewee ay salaire la ñuy fay nit ñi dañoo toog di yor seeni contrat di liggéey chauffeur bi may fay moom yoonam nekkul ci juróomi nit la yor fukki nit la yor bu heure dem jotee day taal otoom dem bu eggee añ ba suur naan ataayam teguwaat ci yoon bi ñibbisi bu xëyee noppalu keneen jël il faut que nit ñi ñuy respecter jëm ci modernisation mm-hmm. maintenant nag du ma dem doo dem mais loolu gàtt xel la mhm. te xam ne wërsëg yàlla moo koy joxe ku nekk ci ñun nañu yéenante jàmm gis nga man dama ne leen ku bëgg ñëwal ñu ànd lii ñuy def nii mhm. ku bëgg mën nañ laa teg ci yoon mhm. wan la nan la ak naka la ñun ñëpp ñu ànd moderniser xam nga Arabie Saoudite ñaata bus lañu ñu renouveler mille te ay privé ñoo àndandoo def ko état bi jàppale leen ñun ci loolu lañ war a nekk man gëmuma nii lii kenn mën na ko def est-ce que xam nga ne offre de service su transport yëpp boo ko boolee on est à 6 pour cent de la demande sur l'interurbain xoolal li dem Touba. Mhm. Dakar dem dikk tegul 250 bus. ñun ñu teg yeneen compagnie teg yeneen transporteurs yi teg ku nekk jël sa oto te benn oto demul ak benn nit ku oto bu ne dem nga fees. Mhm. te tewul ba tey am na ñu taxaw bëggoon a dem demuñ ci heure biñ bëgg a dem. Mhm. loolu mooy li nit ñi soxla ci transport moo dul doy. donc il faut que nit ñi mën ci investir maintenant état di investiral kenn loolu erreur la. Ah, parce que ministre bi war a jënd oto par exemple munoo yor sa oto dawal ko ba mu màgget nga ne noo état dafa war a renouveler parc bi. léegi man leneen li tax ma naan soxor. bi nekk ci transport. mooy damaa seetlu ne war gaynde bi ñu ñëwee mu nekk lu bees paa yi au que ñu ut beneen stratégie pour xam ne transport dafay évoluer le blablacar le covoiturage existe partout dans le monde. Mm-hmm. dañoo commencé xultu bi fi application yi nga xam ne dañuy def transport urbain. ñëwee mooy les Hitch euh, les Yaris lay Yango pour ne pas euh, fàtte kenn su ma fàtte kenn mu baal parce que comme tudd naa kenn faaw ma tudd ñëpp mm-hmm. euh, ñooñu aussi modèle de transport boobu nit ñi dañ ko soxla mm-hmm. démb sama soxna dafa ni ma otoom dañ doon defar affaire bi ci kanam pare mu ne ma taxi laa jël ma ne ko mënoo woon a jël nanga application nanga mu ne ma non taxi bi ma jël dafa taal clim ma ne ko ah c'est bien mhm. donc ce qui veut dire que on incite les gens à aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable mhm. amélioration bu Jakarta yi ñëwee même chose bu War Gaynde yi ñëwee même chose tout le temps ils prennent le micro au lieu de prendre euh, le taureau par les cornes dañuy def bénéfice rentabiliser oto bi pendant des années jaay ko jëndaat benen mais à chaque fois bu amee lu bees sur le parc automobile sénégalais ñoom dañuy génn rek di commencer xultu te pourtant transport fi mu toll ak fi Sénégal toll c'est diamétralement opposé c'est que c'est deux mondes opposés dañu waxante dëgg affaire yi du rajo wala télé moo koy régler ci affaire yi ci tali bi la ci ci ci séminaire bi ñu jógee mm. maa ngi remercier euh, bu baax wal joojo wal joojo Ndiaye il du très bon travail ngi liggéey liggéey bu am am solo parce que séminaire bi ñu jógee lii nga wax ni lépp ci résumé dafa dugg ci séminaire yi nga xamante ne moom la ñu doon waxtaane muy VTC bi mooy mm. affaire yenn application yi foofu la jamono toll taximaan yi non waruñu mun leen jamono fi mu toll nii ñun suñu tukkee bitim réew moom la ñuy jël xeetu transport yooyu la ñuy jël donc ba moo tax ñu ni suñu réew donc il faut ñu avancé ak monde bi fi mu toll et puis par mesure de sécurité sax da ngay xam ki la yóbbu xam numéro téléphone am bu dara amee nga mën a xam koy woo ministre bi moom si si voie bi mu nekk ak ay waaw lii ma gis ñu dajale ci ay waxtaan li ma gis ñu ñu ñu ñu ñu ñu tënk ko ci séminaire yi jëm ci états généraux yi ci yaay Houreye yow déjà fekke nga fi ay ministre transport yu bëri mhm. approche bi nga xamante ni moom la ñu am ak fii ñu jëm ci états généraux yi ban ban jàngat nga ci am. non c'est que déjà man damay wax ni vraiment gars yi commencé woon nañ góorgóorlu bu yàgg gis nga taxi si boo seetloo keroog ci états généraux yi dañ leen di wax ni. Mhm. ba ñuy waxtaan waxtaan yi c'était avant même élection yi di am waxtaan yàgg na am. dëgg la mais application bi moo amul woon. Mhm. parce que instant boobu gars yi ku wax ñu ne damay grève jàpp nit ñi en otage ak yooyu mais léegi mhm. élection amatul. ku ku ku ban politique nga fi mën a jàpp en otage. ama amatul amatoo moyen de pression booy mën a teg. ci état. donc ñii dañuy door a ñëw bees te li ñu wax mooy dañuy réformer. xam nga ministre moom premier jour ba mu egsee la ne gestion wu gare routière gare routière yi état moo ko moom kon la moo tax problème yi yëpp di si am. parce que ñun par exemple li tax mënuñu dem si gare yi mooy bu ñu fa demee duñ ñu bàyyi ñu liggéey comme ni ñu ko bëggee ñun dañu ñëw ne leen ñun dañu bëgg dugg si gare routière yi mais may leen ñu bu suñu heure jotee ñu dem ñu ne ñu noonoo da ne rang topp rang bi comme ñëpp ñu ne leen loolu mënuñu ko ñun mënuñu rang tey yow su ma la waxoon fekk si ma da ngay rang doo doo dugg sama bus donc léegi nag comme que ministère décidé nañ ni dañuy reprendre gestion wu gare routière yi foofu nag moo nar a nekk point d'achoppement bi mais ce qui a été dit et ñëpp d'accord nañ ci état généraux bi mooy dañ koy reprendre bu ko defee ñoom ñu xool naka lañ koy administrer de manière consensuelle mm. mais aussi ñu autoriser ouverture gare routière privée yi mhm. ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur privé bi ak comme structure yu mel ni ay dakaar dem dëkk ay Salaam ay ñeneen ñu mel ni ñun ñu toog ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fii war a dugg transport mën a ñëw organiser wu ñu def suñu ay gare privée yu mag yoo xam ni def ci confort bi war ku bëgg ñëw dem toog ci sa salle d'attente bu confortable bu sa heure jotee nga dem jël sa navette dem sa yoon